juróomi junni ci ay milliards la allahu akbar cinq mille milliards l'observateur ne ëpp na ko l'observateur ne ëpp na ko député yi nag ginnaaw ba ñu dégloo ministre Abdoulaye Daouda Diallo ba pare ñuy wane seen njaqare diis inquiétude ba ah waaw parce que député maire bu Mbambilor waaye lu jëm nag ci wàllum infrastructure yi de jàpp naa ne liggéey bi day des na de des na de leen ma hôpital yi gi de ñaata doomu aadama kon ñoom ñoo fay yeewoo vraiment hôpital ba war leen ma Mbambilor lu tolloo juróom benn fukki junni ak juróom-ñeent soixante neuf neuf mille habitants waaye Bambilor amul lycée ba ni lay yaa jum wala maa jum Ndiagne Diop ne Bambilor amul benn lycée nag laa la wax te CM Gorom 1 bi nga xam ne kon moom lañ tabax ñeenti atu yàllaa ni lay CM bi pareegul ba ni lay école Mbambilor ne am na ay élèves yoo xam ne ci Mbambilor gi lé ci ay saket ak rinting la ñuy jàngee abri provisoire waaw critique yéene kaay ne 2012 2022 ba day waaw budget ba yegg na ci juróomi junni ci ay milliards mais gis nga xarañ day professionnalisme gi nga xam ne moom la gaayu Abdoulaye Daouda Diallo nekkee ni lé gaay rafetlu nañu ko de loko tijee yéene kaay ne xanaa xamoo leen ne budget ba lañ ca bëggoon romb nañu ko sax fukk ak juróom ñaar ci ay milliards direct news de Abdoulaye Daouda Diallo kay ginnaawam bandang ah waaw askanam lu tolloog douze mille quatre-vingt-huit salle de classe tabax nañu ko abri provisoire yooyee lu tolloog mille huit cent cinquante daal dinañ tabax ci ay classe waaw un milliard deux cent trente et un millions quatre vingt ci ay dem ngeen di ki gilee autorail wi relancé nañ ko te état bi ci tolloog juróomi milliard la fa seene dugal abu ne jagleelee ko communes yi lée pension retraité yi lée nee nañ danañ ca dolli slëf libération yéene kaay de boo jëlee deux mille douze léegi ni lée dama ne wax benn arriéré de paiement amul ci entreprise yi nga xam ne dañuy liggéeyal nguur gi lé alerte yéene kaay ak réew mi quotidien ne loi bi ci wàllum terrorisme ga day waaw opposition ba nekk ci assemblée nationale ga la dem nañ kalaame ci te conseil constitutionnel laa la wax sur ça ne dama lay gis nga député yi nekk ci opposition bi day am nañu lu ci toloo ñaar fukk ak benn ci ay signature ngir conseil constitutionnel googe daal di niilal lii ñu yokk kon ci wàllum loi bi yéene bi nga xam ne dañu koo voté fanweeri fan ci weeru décembre réew muy daan wàllum yekkataan viol ak lu ni mel waaw ñu ci bëree bëri dañoo umpale la nekk ca loi boobee waaw parce que yow raay rek raay caressé raay juróomi at jàpp fukki la raay kese yi dee xanaa kon boo defee leneen aduna tukki bu ñu sukkandikoo ci article trois cent vingt bis waaw nee na lépp lu xeetoo ak wàllum yekkataan raay raay mbellee mbirum saay-saay jëfandikoo ay image wala son jaare ko ci ay mbirum technique bu mën a ne naa ay whatsapp la ak ñoomin seen bu a ci mbirum góor ak jigéen xale boo xam ni fukki at ak juróom benn la am loo ba day daan na la juróomi at jàpp fukki atu yàlla laa la wax la ilaha illallah yéeni kaay daaw da càmmine te article trois cent vingt ba waaw dafa ne bu dee da ngaa yegg ca kawam na dëggantaan te pénétration sexuelle la waaw kuur ga ca gën nga nga ko ci fitna wañaar loxoom jaay ko doole wala menacé ko wala bett ko loolee viol la fukki at jàpp ñaar fukki atu yàlla allahu akbar seen côté yéene xoolal ma coppite yi nga xam ne président Macky Sall def na ko lépp diggante jaay doole la ak wax ju toogul rek ay imprécision wala yàkkamti kay xoolal leen ma acte trois décentralisation googu gi de waaw xoolal leen ma yenn communes yi lan lañ ci jëlee toroxtaange xoolal leen ma référendum bi lée ak quinze points mi jaay doole wala yaakamti xoolal leen ma loi bi tey ji lée ci wàllum terrorisme gi forcing jaay doole jiixi jaaxa te gis nga nag boo ci génnee coppite yooyee muy indi ci loi bi modification yi code électoral bi nag sur sa année xalifis nekk ca day ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar waaw ñoo leen woo ne leen ñëw leen waa kër Khalifa Sall yi ne ñoo lànk laa la wax loolooy dëgg de les fa yéene kaay ne waa gëm sa bopp day ah. am nañu ñoo xam ne ñëw nañ ca ñoom jugee a APR ak parti démocratique sénégalais tribune yéene kaay ne waa yow demu Macky Sall ba ca Thiès moom mburu waaw lan moo tax ba soow ñëwul astafurlah lan moo tax ba Idrissa Seck ñëwul en tout cas coow li de waaye ndax Idrissa Seck daa nekkoon ca biir Thiès googe ne muut daal di toog lé di seetaan demu Macky ba wala ndax Idrissa Seck dafa nekk ci Ndakaaru njaay jël Jóob ji lé nekk ci ay mbiru boppam en tout cas ñoo xam ne dañoo ànd ak Idrissa Seck day dañoo jàpp ne Idrissa Seck kilifa la ay dem ci ay gatandoo ay buuxanteeg yooyee du ca ne yéeni kaa gi kon xanaa Idrissa Seck moo gën a fort ministre yi punkal yi nekk ci réew mi Idrissa Seck tey bañ a dem ah waaw parce que tribune yéene kaay nee na Idrissa Seck moo nga xam ne kon génne woon na ko te gémmeñ nga ñu fal sax ca bureau ba nag fas yéene kaay dee média gi ne waaye yow Idrissa Seck tamit moo tey ni muut ka waaw waaw lan lay waxati yow Idrissa xam nga ne bu ne sëqat wala mu wax lu ndaw Macky Sall mën na koo dàq te a Seck moom Macky Sall bu ko dàqee na ko leer ne mooy bare na ja retraite politique par force termine yéene kaa ne ministre de l'artisanat day Baba Amadou waaw nee na ñun day accueil bi gisuñ ci dara lu dul lu baax réussite am na ca mobilisation bi am na te waa Thiès tam wan nañ bi yow la ak gloria est-ce que ñi itam jaawale wuñ jàmbur sangoo ko réew moo xam ne jàpp nañ ne président de la république daal yàlla ju ndaw problème yëpp moo koy saafara looloo tax ñu koy biiw ni weñi kon di biiwee ay ginnaaw kër mar di daali waaw état Sénégal bi nga xam ne day léegi dañ koo jàppee ay mbirum waxaale mais te koy waxaale fëgg jaay négociation ay weccante ay alal mbir mi daal teranga la mandat bi nguur gi nombre de militants réew mi ko ti yéene waaw parti Ah, keroog ba jubóo Masaalikul Jinaan bi amee ak léegi ni lée Abdoulaye Wade tamit dem ca palais ba Macky Sall di ko ne ko dana ko seeti seeteegu ko ba léegi ni lée mbaa du kon dañoo nax Abdoulaye Wade daal di koy piégé yéene kaa gi ne léegi auto bi lée bu ñu waxantee dëgg Ousmane Sonko ak Macky Sall la parce que fu ñu waxee opposition ak nguur xeex ba Ousmane Sonko ak Macky Sall la daal di jël BDS nag tegee ko nee ca tuus yoon parti démocratique ñu demee ba amatul kattan bu mu xeexee ak Macky Sall mi lée noo bokkul opposition amaat fukki at ak ñaar ci nguur ah non non non non non non buñ demee ba PDS mënatul xeex wala amul kattan gu mu xeexee ak Macky non PDS ba woon ak bii bokkul les voyés de kaane defaraat nag ak yorinu marché Sandaga day xeex baa nga ca diggante Soham Wardini maire de Dakar ak Alioune Ndoye maire Plateau laste géejawaay fippu nañ de ndaxte nee nga ñu fonctionnaire yi ñooy tongtongee kon seen suuf soosé taatu firaawoye la ñuy séddoo waaw te ña ngay tuumal nag